bismillahi arrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim qaala alimamu alcashmawiyu rahmatullahi alayhi baabu mandubaati salaa nee na lii buntu julli yi nga xam ne des leena soppu la julli <clears throat> benn ñu def ko fardan benn muy farata walla du ko dox su ko doxut benn muy luñ sopp walla du ko dox su ko doyee cofeel ga mën naa nekk ci niveau bu kawe niki sunna mu akkada wala bu ko gën suufe niki saa'iru sunan wala mu nekk raxiba su ko doxut benn muy julli gu xaraam niki julli jamono ji jant bi fenk wala jamono ji jant wala ku farata war te bu naafila farata wi génn waxtu wi wala muy luñ sip niki koo xam ne e, julli na tàkkusaan ba pare sip nañ mu naafila gannaaw ga wala julli na suba ba pare sip nañ mu naafila gannaaw ga feeg jant bi fenkiwul ba noppi nee na wa yustahabu dees na sopp lil mukallaf yi ñeel mukallaf an yetanaffala mu naafila qabla zuhri njëkk tisbaar wa baadaha gannaaw ga xadis ñëw na yonentu sallallahu alayhi wa wax ne ku jullil yàlla fukki rakk ak ñaar ci coobareew ci bëccëg bi ak guddi gi yàlla dëgg ca rakk yooyu tabaxal ko néeg aljanna ràkk yooyu la ñuy tuddee sunanu rawatib muy ñeenti ràkka balaa nga julli tisbaar ñaari ràkka gannaaw tisbaar ñaari ràkka gannaaw timis ñaari ràkka gannaaw gee ñaari ràkka balaa nga julli suba muy ñaari ràkkay fajar yi yonentu wax ne moo ko gënal haddunaak li ci biiram rot na sax nag ni <clears throat> ku takkoo ñeenti rakka njëkk tisbaar ak ñeenti rakka gannaaw tisbaar yàlla xaraamal yaramu kooke safara nañ yàlla dugal aljanna te xaraamal safara ci suñ yaram xaraamal suñ yaram ci safara wa sopp nañu naafila itam qabla al asri njëkk jullik tàkkusaan wa baada maghribi ak gannaaw jullik timis rot na ne yal na yàlla yërëm uh, as cam su julli ñeenti rakka bala tàkkusaan rot na ne ku julli juróom benni rakka gannaaw timis juróom benn rakk yoo xam ne waxut ca bakkanam lu jaaduwut rakk yooyu dañu tollook jaamu yàlla fukki atak ñaar am na riwaaya ju ne xufira dunubuhu wa in kaanat mithla zabadil bahr ñu baal ko bàkkaaram yépp su dee sax toll na ni fuuritu géej moo tax mu ne wa baada al maghribi wa yustahabu dees na sopp ziyaadatu dolli naafila fi az ziyaadatu dolli fi nafli ci naafila baada al maghribi gannaaw maghrib gannaaw timis wa haada lii kulluhu léppam nag laysa bi waajibin warut wa innama huwa xamal ne moom ala tariqi listihbaabi mi ngi ci yoonu sopp dees leenaa sopp waaye duñuy farata wa kadhalika naka noonu yustahabu des na sopp adduha julli fay nange bu dee nag tolloo yenn at yi njegamaar wala xale lu góor julli fay nange ñu ne fa ngay gaaw dee xaw ma fu ñu jëlee aada jooju waaye ki njëkk indi dee safara la jëm ndax dafa weddi wax yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamu yàlla du gaaw a bu ñu waxee ne dañ dees leen a sopp nag moo di eh, sunna yonantu sallallahu alayhi wa la watale tax léeg-léeg la ah dara sunna la rek waaye sunnatu mën hmm. waaye yonantu sallallahu alayhi wa sallam dafa bokk ci sunnaam julli fay nange mooy julli yoor yoor wa tarawiixu ak taraawix taraawix nag buñ ko waxee xel yépp dafa dem ci weeru koor waaye dees koo gën a sopp ci weeru koor waaye guddi yépp lañ ko sopp aha wa taxiyatul masjidi ak nuyu jàkka ji yonentu sallallahu alayhi wasallam dafa digale boo duggee ci jàkka bul toog bul def dara féeg nuyuwuloo jàkk ci waaye boo toogoo nit du tax mu faat la jogal nga nuyu jàkk ji noo koy nuyoo jullil ñaari rakka lu dul nag nga dem makka ca kaaba ga moom niñ koy nuyoo mooy tawaaf xanaa ku dëkk Makka dugg si ci eh, kaaba gi eh, te naru la tawaaf kooku mom na ko jullee na ko naka la tuddati na ko nuyoo ñaari rakka waaye daal tawaaf mooy nuyoo bi gën ñeel kaaba gi boo ko nga julli ñaari rakka <clears throat> rawatina ku dëkk Makka ndax ñoom ña nga fa toujours wa taxiyatul masjidi loo teg wa shafau ak shafaa shafaa mooy eh, lu peex mooy lu tollantiku mooy lu tóolut ñaar ñeent juróom benn juróom ñett fukk ci rakka loolu yëpp shafaa la moo tax mu ne wa aqalluhu li gën a néew ci shafaa nag mooy rakaataani ñaari rakk wal watru ak wal watru watr moom ngeen di wax witr rakaatun benn rakka la baadahu gannaaw shafaa moom wa huwa moom witr nag sunnatun muakkadatun sunna suñu feddali la su dëgëra dëgëra dëgëra la wal qiraatu jàng fi shafii ci shafaa wal watri ak witr jëhran ci biral des ko sopp booy def shafaa ak witr sopp nañ nga jàng ca kaw moo tax wa sopp nañ alxiraatu jàng fi shafii wal watri jëhran ci biral maanaa ca kaw wa yaqra'una jàng moom aji julli shafaa ak witr fi shafii ci shafaa fi rakaati al ula ci raka ju bu njëkk ba bi ummil quraani suratul fatihati wa sabbix isma rabbika al ala teg ca sabbix isma rabbika al ala wa fi thaniyati ci ñaari raka bi bi ummil quraani ndey al quraan kii fatiha mu teg ca qul ya ayyuhal kaafiruun wa fil witri ci witar nag mu jàng bi ummil quraani ndey al quraan kii fatiha wa qul huwa allahu ahad wal muawadatayni ak falaq ak naasi maanaam su fekkee ne sa safa fukki rakk la ñaari rakk yi mujj balaa nga wëtër na nekk eh, tabaarakallahu fatiha ak sabbih isma fatiha qul yaa ayyuhal kaafiruun bu mujj nga def ko fatiha qul huwallaahu ahad ak falaq naasi Mm-hmm. wa rakaatal fajri bokk na ci yiñ soppu tamit ñaari rakaay fajar wala nga ne wa rakaatal fajri ñaari rakaay fajar min arragaibi dafa bokk ci julli yi ñu xemem fajrun ragibatun wa tuqda lizawal walfardu yuqda abadan wa bittawal ca seen murshid ba wa qiila waxeef na nag min as-sunani mi ngi bokk ci sunna yi lu tax ci raxiba yi ndax yonentu sallallahu alayhi daf koo xemmeem loo jaam ñi ne moo ko gënal àdduna ak li ci biiram wa yaqra'u dana jàng fihima ci ñoom ñaar sirra ndànk bi umil qur'ani ci suratul faqat kot maanaam kiy julli ñaari rakkaayi fajar mu ne na ca jàng suratul fatiha te jàng ko ndànk bum ca jàng saar waaw question dana ñëw ci li romb mooy bu ñu waxee ne ku dugg ci jàkka bum toog fekk julliwul ñaari rakk te am na jamono yoo xam ne des caa tere naafi la kon ku dugg ci jàkka nu muy def na wax subhaanallahi walhamdulillahi wa laa ilaha illa allahu wallahu akbaru ñeenti yoon maanaam ki dugg ci jàkka gannaaw tàkkusaan wala mu dugg ci jàkka gannaaw suba na sàbbal yàlla sant ko wéetal ko màggal ko ñeenti yoon mu taxaw taxawaayu tahiyatul masjid wala dugg na sax ci jamono joo xam ne jamono ju dagana julli la waaye amul njàpp booba an na def subhaanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa akbar ñeenti yoon ñu taxu taxawaayu ñu taxaw taxawaayu ñaari rakkay tahiyatul masjidi wallahu tabaraka wa a'la wa a'lamu